asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ci ndigalu sëriñ moor faati mbàkke gaawaan di xalifa mam cheikh anta mbàkke boroom gaawaan yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér sëriñ jili mbàkke di xalifa sëriñ moodu maamun ak mbooleem njabootu sëriñ moodu maamun mbàkke yàlla ñu fi yàgg lool te ànd ak wér ci kilifteefu sëriñ aboo mbàkke moom sëriñ moodu maamun sëriñ cheikh abdu mbàkke di xalifa sëriñ amdi mbàkke daaru salaam ak mbooleem njabootu sëriñ amdi mbàkke yàlla nañu fi yàgg lool te ànd ak wér mooy soññ mbooleem julit yi yi nga xamante ne bi mooy seen buntu ci sëriñ tuuba ci xamante ne bi njabootug borom gaawaan at wu jot daañu moom Serigne Cheikh Abdou di soññ mbooleem ñu aju ci kër gi rawatina ñi nga xamante ne bi mooy seen buntu ci Serigne Touba fépp fu ñu mën a nekk ci biir réewum Sénégal ak bitim réew mi di soññ ci liggéey bu am solo boobu nga xamante ne bi àddee la ju jóge ci borom gaawaan jëm ci Serigne Touba mu war a nekk juróomi fan ci weeru janvier atum 2019 gannaaw loolu itam mi ngi ñaanal jullit yépp ay xéewal rawatina taalibe yi ba saa su nekk bëgg jëfal Serigne Touba ñu koy def ñu ko bëggee taam ci lu kaw seen njort wasalaamu aleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu.